jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet point ñu indi leen xibaar bu tiis bu dal ëxlu làmb dal ci écurie Rock Énergie kii di tëdd fil ba di Modou Xarañ Lo moo ñàkk waajuram bu góor ñu di ko wax Père góora Père Gora nag bëñ moo ko daaneloon ñu yóbbu woon ko fële ci benn clinique bu nekk ci Thiès ci ginnaaw loolu nag lañ ko jàllale hôpital principal bu Dakar opital principal bu Dakar boobu nag fa la père Gora mujjee génn àdduna ñu di ko ñaanal rekk yàlla xare ko àjjanay si ñu di jébal suñu njaal ñii di waa rek écurie Rock Énergie yëpp ak seen tedd fil kii di Modou di ko ñaanal yàlla fépp fu ko way juróom boobu féete woon yàlla na ko fa yàlla féete te yàlla teg ci njaboot gi loxo góor a nag mi nga xam ne moo génn àdduna ñu di ko ñaanal rek yàlla na yàlla xare ko àjjanay firdawsi te dëkkale ko ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam